donc di len ziar sama gars yi maa ngi len di bëggee bu baax a baax a ñu ngi délu ziar bu baax di la bëggee yow tamit di la jaajeufal bu baax baax. ok chuki tay ngeen ñëw rek am ben feul bon xamna né ramp ngeen peut-être parce que hip hop mëno ci jaar sang rampé ngeen jékki-jékki am ben feul ñëw gaay yëpp nangu lan moy secret bi lan moy liggéey bi. waaw secret bi wax nga ko légui moy liggéey bi rek amul lenen ha ah. tok liggéey rek ba kérok yalla di la taal. defo len ni gaay yi di def yenn gaay yi créer ay buzz force ay affaire Hmm, non non non. donc naturellement la bagage yi la question bi may laaj mooy nan ngeen def ba ba ñu def ba ñu lañ producteurs, eh, suñu producteur suñu manager suñu ingestion parce que nous lañ en contact donc euh, Mohamed xam kenn ku suñu la nous Nous ñu dafa am ñu d'accord Vibe Radio euh, les 5 ans de Tarek Show. Euh, ngeen <laughs> xaaral ma jox sa waaye mu répondre leen question bi euh, lan la émission bi di signi signifier ci Akatsuki quoi. non émission bi d'abord dafa nekk avant tout dafa nekk boo dafa yàgg a nice te taal aussi dafa yàgg jàppale underground yi yàgg a jàppale gars yi nekk ci suuf yëpp. yàgg di push aussi booy di push up ñëpp di push up aussi di jàppale aussi gars yi si kaw kon c'est normal bu xewlee tey ñu ñëw fii parce que taal aussi suñu grand la yàgg nañoo jàppale yàgg nañoo jàppale seen affaire yu bëri waaw bu koy wax fi sax loolu du jeex. waaw présidence suñ suñ présidence fii c'est grâce à Tal aussi parce que moom moo ko liggéey. ok euh, tey euh, mu mu nekk loo xamante ne lu am solo la émission bi tey ban particularité lan ngeen mën a wax ne loolu moom mooy particularité émission bi ba tax yéen tey aujourd'hui fu leen taal oo ngeen wuyu ko ma ñëw ci élément pour mu répondre par rapport à question bon comme comme comme li Khalil wax rek bon ñu ngi ñu ngi ñu ngi remercier Tal bu baax parce que. voilà quoi moo ñu ji lii nga xamante ne ñoom moom lañ ko delloo tey donc ngor lañ ji teraanga ñu delloo ko tay donc particularité émission bi mooy liggéeykat dëgg bu fi jaaree ñëpp a koy xàmmee. liggéeykat bu fi jaaree gars yi yàkkamte moo jaaraat fi. donc émission la plateforme la boo xamante ni pour artiste bu aay mën na fi jaar Sénégal gépp xam ko mais àdduna yëpp xam waaw bon artiste bu liggéeyul bu fi jaaree da koy conseillé ne ko gën a liggéey ba jëmmi jamono. artiste bu bu bu aay bu fi jaaree artiste buy liggéey bu fi jaaree da koy da ko naan fi nga ko teg foofu la gën ko push up. ok Akatsuki am na benn ay ay coow yoo xamante ni am na entre vous ak yeneen groupe yoo xam beneen groupe bu nga xamante ni je pense que ñoom le même nom bi ngeen am moom la ñu am. Euh, ay bif la entre vous xëccoo ay tour la wala qu'est-ce kan mooy répondre ci question boobu ma jox sa wala ma jox la élément. bon wax dëgg yàlla moom ñun moom comme li ma la wax rek li may wax à chaque fois rek hip la quoi hip la nit mën na tudd Momadou keneen ki tudd Momadou keneen ki tudd Momadou keneen ki tudd Momadou voilà quoi. je vois que am na ay ay ay ay ay kii yu am si seen diggante. non du du biif parce que ñun ñun leen rek moo nekk suñu bopp. mooy si liñ jëm ak suñ projet bi war a génn wax dëgg yàlla donc ñu ngi liggéey ñu ngi focus ci loolu et puis mënut a quoi daa si paap

du léegi projet bi gars yi ñun leen rek la leen wax mooy ñu taxaw xaar déglu bon ñu ngi ñëw ak yeneen i facette ak yeneen affaire noonu kese la fa demee rek. wéredi wéredi mu nekk benn mu nekk benn single laa ko mën a tuddee boo xamante ni je peux même dire que moo lancé Akatsuki Mr Cash si début bi nga def benn couplet boo xamante ni bi muy ñëw euh, je peux dire que couplet boobu man personnellement damay damay wax yéen ñëpp am ngeen talent mais couplet boobu bokk na ci li ma tax a bàyyi xel kii muy couple Mister Cash bi te xam naa ne yéen ñëpp xam ngeen ne il a été à la hauteur comme yéen ñëpp ni ngeen ci nekkoon mais moom aussi tamit def na benn affaire boo xam te ne gis naa sax artiste international def def ci ay affaire quoi Mister Cash lan mooy secret bi lan nan nga def ba ba ba impressionné gars comme san par rapport ak ce couple bi yeah salaamaaleykum Mister Cash la from Akatsuki SN yeah waaw <laughs> comme li la sawaay wax rek liggéey rek la liggéey rek la comme li wax boo booy liggéey lu ñëw du la beetu quoi. am na noo def ci biir couple bi rek xaw ma lan jël ji technique boobu noonu est-ce que man nga ma defalaat loolu. juste benn 3 minutes. benn benn 5 secondes wala 10. pique di kii fàq ne dëkkuñu dikk gën a di dikk dikk te dagguñu dikk dañuy dem bëgguñ kenn. <laughs> il est excellent Akatsuki euh, ngeen di préparé album. Euh, mu nekk loo xaman album ah wala mixeur lan la waaw ah, loolu tamit loolu débat lan la projet lan.

d'accord Tay euh, ngeen am ben succès bo xamante je peux vous dire que même bu doon buñ len don doon underground actuellement tegaat ngeen ben pas bo xamante ni gi a ngi fi ngeen nekkoon man man nako ko non. parce que man su confirmer talent dama koy confirmer avec un projet pas ak ben sound dama koy confirmer ak ben ak ak projet euh, tay nan na len di def succès bi nga xamante mom moom ngeen am.

ok donc euh, ça a été un plaisir et merci de nous avoir accordé ces moments kontaan naa ci yéen trop et di leen souhaiter bon vent di leen wax nga am ngeen euh, talent boo xamante ni man day wax dëgg yàlla seede signé na ci par rapport ak li nga xamanteni mo moo jot a j'espère que li nga xamanteni mom moy mooy ñëw moom mooy daax. lan lan moy dernière mot bi. loolu gën ndaw li gëna gëna ndaw ci affaire amul dalu dé bu leen dalu hmm. wéré di wéré di.

en tout cas bienvenue anniversaire la woon na dans le Talrek Show One Nation bref merci beaucoup les gars et merci de nous avoir accordé le moment